pharmacie bi jënd ak garab ba ñëw fekku mag bi xanaa koy dox ba feebar nga mën a toog. médecin bi nee paa bi feebaram bii mooy loolu quoi bu dundee weer si lay yem. yow dara jatu la tension rek moo la jàpp mais ça va léegi. Ah, waaw léegi bu deewee ma ak sama rakk bi waxtaan nañ ba pare du ñu jaay kër gi miraas bi quoi du ñu jaay kër gi léegi daal yow bu wax kenn dara waaw bàyyi ma gën a feebar gën a bon. waaye yow ni jaay bi nga yor du téléphone Şşşt. Nabil. Ah, Nabil. Ah. Telepono mara, no wasak. Ija la yo. Ah, a ni no basi lo nek. Kamu mana ngonjo ni wara wi, uno na hala. Ata yon, kola yang ala siling airef. Kola yang ala siling airef. Kola yang tus wi. Ha? Yon ako ko ara saram ci bayra ja pizza. Parce que pizza pun la jayon bu ngone do si dos bi. Da Ha? E, oh, umuwi kayo puno ni Sir Pizza. Kapahilig pizza. Ah. Kararak. Tapos yun, kayo di kayo ni John di kayo ni Defe. Nakon din. Nus mo na kayo tagfasa tala. Kararak. Mat, mat, tutula maray. Eh, waaye looy taxaw fii si mbedd mi nii looy def fii loo duggoo si biir bi. yow dama laa woo ba soo jotuma la am sa téléphone. nga ni lan may jokkoo jokkoo de woo sama téléphone de ma téléphone mi ngi ci salle bi may branché di ko chargé maa ngi nii dama génn nii rek fa gis la loolu duggoo. man dugguma de sama jiyaay bi moom daf maa neexul rek keroog laa ñëw fii mu may xas. wuyu ma nag sama impagne nag koy kii quoi da koy comprendre waaw da koy comprendre quoi moom mooy loolu quoi waaw ma yow ma nga yow la quoi waaw mais rek paa yi da nga leen comprendre quoi parce que ñoom bëgguñu bëggaanuñu man maa bëgg waaw te maa ngi lijjanti affaire yi quoi instant yi waaw mais lan la sax lu la fi indi tey. waaw alors Omar. Sampai banyak malah nih, lo mau ngoi nih. Yon hal sa wote ngi bëgg bëri de mooy. Issa maa ngi nii toog di la dégg maa ngi nii ci digg saal bi toog ma ne ma ne nga yónnee ma laa yónnee ma yónnee ma xaar instant dama am ay soxla yu may doxi te yow laay xaar nga yónnee ma. yónnee ma de nag ma yónnee na nga fexe ba nag ma yónnee Issa Issa yow nag rek rek rek rek rek rek xaar te ci yow rek laa ko yaakaar yónnee ma de te nag ma yónnee lu doon sax. waaye yow balaa nga ko yónnee ay lu doon ak yu kenn xamul ma laaj maa ngi jàpp ak yooyu ah, man maa ngi nii di affaire yi leeragul quoi sama premier jour liggéey laa dégg nii tey laa doog am liggéey ah, yooyu nga may woone ana Omar. waaye yow doo ma yónnee boobu ba léegi maa ngi wax Omar mu woo la ndax nga yónnee ma sama xew mi te yow nga xamante ni sa papa nangootul joxe dépense ci kër gi fii mu ne lu nu lekk rek ñun ñoo ko liggéentil bopp te yow itam nga nekk Europe. Isa jàpp si waay. ah Ipañ eh, waa dégg naa la dégg naa leen Isa mooy lijjanti billaay bu lijjanti koo rek ba avancé leen amu problème boobu amu problème boobu Isa mooy la duus laa nekk nii sa duus waaw ah, ngeen ñaanal ma tamit ngeen ñaanal ma Isa duus duus laa nekk nii benn waay moom ñu wàcc fi min jaa boo xam ne xaw ma min jaa bu fukki fan la kay waaye bëgg dee nii ah, jàppale leen ma rek ngeen buñal ma tuuti. ah Isa moo la baay waaw ah, man de maa la woo waaye sa yaay daal si fox waaw waxtuma tamit sëñ sëñ Panc mi siifaal wax ci waaw ndax ñoom ñaar ñëpp man maa leen seeni téléphone ba wala waaw doon seen kilifa ñu doon bàyyi ma wax ñu njëkkante ak man parce que ñaar duy yeer ak man isa boo ñëwee ne sa bàyyi dee na mu lu bett ñaar duy yeer ak ma lekk kenn joxtuma ma naan ñun ñaar ñëpp waaw xam nga léegi da laa bëgg nga may répété waaw sama naa sonn si yow nga may jox ah, ma koy bàyyi si si si Adja ki yore restaurant bi waaw moom mooy rafetaay waaw papa waaw comme li ma wax sama yaay rek man bàyyi naa commencé liggéey nii te ne sa premier jour muñal rek muñal yàlla baax na waaw ah, muñal waxoon Omar mu jàpp ñëpp la jàppale eh. wala nga bàyyi après daa wax kii la ñu lay lekk fan yi waaw mu weeru dee rek mu ñu dee la quoi même bu ma koy lewal ñu ko waaw te la dundal fan yi ba weer mu dee rek raaw muñal rek. nga nekk góor ah waaw sa patron bi mu avance la waaw wax ma avance la après mu dagg la ko waaw ay saa man mooy la démb reeru fonde lañ toog lekk waaye ñu muy bët bëgg dee waaw ñu sa baay sa na waaw waaw sa patron mu avance la mu nga envoyé ma ko sa numéro naa ko jël ma woo la gore naa woo leen ñoom ñaar woo la ngi nii di xëccoo man wax ci waa léegi garaaw xaw ma sa patron déggante wuñu parce que déggu lu may làkk su ma yeggee daa booy mu ñëw mu ñëwee boo ko boo xam ne ma mën a lebal quoi waaw yow it xanaa Issa yóbbanteewu la boobu ba léegi xaalis bu nga waxoon anamu. waaye léegi mu mat a yi si man la tardé woon sax Issa woo ma fan yéen ni ma bu bëggee ma envoyé la ko fët fët mais man maa bëggul compte compte banque ma affaire yooyu quoi mais maa ngi koy lijjanti su ma tee ma tijji ko après dem jëli xaalis man naa la xaalis nga tijji compte. waaw baax na léegi yow boo ko lijjantee na ma koy envoyé rek waaw nag boo envoyé wala ngoon su may dem entraînement ma jaar sa gàll ma jël xaalis bi léegi man bu subaa fajar huit heures ma dem tijji bi jënd bi xanaa koy dox ba feebar nga mën a toog. médecin bi nee na paa bi feebaram bi mooy loolu quoi bu dundee weer si lay yem. yow dara jatu la tension rek moo la jàpp mais ça va léegi. Ah, waaw léegi bu deewee ma ak sama rakk bi waxtaan nañ ba pare du ñuy jaay kër gi miraas bi quoi du ñuy jaay kër gi léegi daal yow bu wax kenn dara. waaw bàyyi mu gën a feebar gën yow laa doon xaar boobu ba léegi pour yàq añ boobu léegi maa ngi toog di la xaar. kër astu gii laa demoon Omar sax woo naa ko ni ko gaaw a sompaañ mu yàq añ. wax ji de ñaar la waaye gis nga sa nijaay ma nga sa mbedd ma de. ya waa papa yow looy def nii looy toog fii si buntu kër gi ak sa yére yi. waaye man waaye man waaye nag joxe maa ngi nangu mooy fay. ah jàppale leen ne doole ji. ya papa yéen a ngi yelwaan papa bàyyi li ngay def di yàq suñu der si koñ bi nii. lu waay am man yéen a joxe may ah, yàlla nag mooy fay ah nay leer ah, ji doole ji xam ne ay doomam ak ay jabaram ñëpp a koy seetaan. waaye yaay kër gi kenn nekku fi bopp li mooy lan yow. Ala voi voi voi, ah, se ei ole parallel kuva. Hava, vaikka jos olla haisti niin kuva. Hava, varmaan jos ei ole niin, mä mõtlen ja annan suani. Vai ju meille kiel. Hava, kalla kun fransa kuva, aina kun basolla nämä avas kuva. ne waaw léegi mooy loolu may liggéey weer bu dee damay joxe ko joxe waaw léegi moom moomu ñu jënd te lekk te man waxuma loolu sax waaw kaay dem waa ji li jënd ma xaalis avance ma. gis naa ko kañ sama nijaay de fii la ñëw naa ma loo togg añ mu naan ko ceebu jaga laa togg añ waaye doo ci lekk parce que ñun ñoo débrouillé suñu bopp dépense mu ne ah kon lu leen neex ngeen di def man tamit lu ma neex lay def. kii moo mën a yàq der ma nga fa de ma nga fa toog moo serat maam di yalwaan yàlla bu kolaandeer sax waa wuy ma boo nga jël bool bu ndaw tibbal ko si de bu dul dina yàq suñu der. yow war neexul ba neexul mais yaa ngi may déconcentré waaye ma sama liggéey laa nekk waaw yàlla moo ma teg nekk fuqara ak masaakin ñaar yëpp laa boole yow jigéen nga topp muy gën a et ça du nitu fii ba mu demee Europe lañ ko ñàkk sa yaay li nga doon lay xeeñ ñi ceebu caka lañ toog sëñ Ba di laa dem di mu ne ma yow joxe woo dépense sama palaa la ñuy toog laa la muy ceebu jaga waaw instant yii ma siy kokkali waaw naa ma joxe woo dépense wala lekk waaw man ma toog si mbedd mi yàlla waal doomu jaabu dina ma defal man. waaw wuyu ma loolu yëpp garaawul kër Kiné laa jógee nii waa jox na ma cinquante mille waaw léegi nañ dem après naa jox téeméer. lu waay am lu waay am man loolu ma yu baax yi laa wax waaw xuma ma borom yi waaw lu waay am lu waay am. waaw garaaw léegi def naa ko mille francs waaw jugal ñu dem jugal li bool. yéen a joxe may nangu yàlla mooy fay. lu waay am lu waay mën. papa def naa ko mille cinq cent léegi xanaa doy na. nitu yàlla yaa na ngeen ay génn leen. lu waay am lu waay mën si néew ñu doole ji. papa xoola deux mille laa mën a yom deux mille nu ma ko weesu soo bëggee ñu dem ba bëgg na nga toog. oui mooma neexul ba neexul mais yaa ngi may bëgg sonal yaa ngi may bëgg sonal waaw man fii ma toog nu mu dee dee dee balaa may wàcc cinq mille dina mat dina waaw ah, parce que nit ñi ñoo koy xam nañu man mooy loolu liggéeykat laa boo liggéey ne boo amatoo nit ñi jàppale la te yàlla rek a tax ah, ma wax la sax aram mu nekk na <laughs> deux ko si teg ah te kër ne la yow waaw ah, loolu day ko aram nga wax aram nga xam ne moom lu mu yëg mu siiw quoi nga toog fi def yii la fii xam ne da ngay dem ki ne quoi te yàq der quoi suñu der waaw léegi jugal wax naa a am waaw ah, te cinq mille sax mooy loolu waaw mën nga ko gën a yokk mais garaawul cinq mille moom trois jours laa koy consommé rek dellu si waat si banc bi fii. yow xanaa yéegee yu may wax échange waaye mu ngi laaj yow yow benn fan nga liggéey waaw garaawul mu mu ngi laaj yow yow yaa ngi fi mu bës dama bës si bi ñëw na mu ngi laaj yow Agora, em relação ao meu mesmo bem, porque você veio, tem uma educação de rede que eu tinha qua. Uai, põe logo que mama que não leva uma coisa boa uma cara. Uai, isso é o lado da bem relação. Uai, mas eu para mim sabe, nyar men ku nek 50 mil. Uai, nem do pan mo qua, nem tem logo fek não vai me panchar mo qua. Eu não lá que troca já me. Eu sei como passar lá na casa qua. Ah, bora lá qua. Tenho uma tek entre Saam bi li may wax comme ni boo ma fay cent dix mille nga ma fay waaw loolu mooy business bi quoi. waaw booy maa yow ba sa intérêt waaw ba tey. bi jënd ak garab ba ñëw fekku mag bi xanaa koy dox ba feebar nga mën a toog. médecin bi nee paa bi feebaram bii mooy loolu quoi bu dundee weer si lay yem. yow dara la. tension rek moo la jàpp mais ça va léegi. Ah. waaw léegi bu deewee ma ak sama rakk bi waxtaan nañ ba pare du ñu jaay kër gi miraas bi quoi du ñu jaay kër gi léegi daal yow bu wax kenn dara waaw bàyyi a feebar gën a bon. Omar yow xaalis bi ma jox daa bëri lii yëpp maa ko moom. bon kii gis na deux cent mille yi ma la jox cinquante mille yu njëkk yi mooy cinquante mille yi ma lebaloon fu ma tijji compte waaw beneen cinquante mille bi. boo wokkee sama bopp wokk boo xam ni mooy loolu dindal ma crasse yi mooy beneen cinquante mille yi waaw cent millions yu si des yi di nga bépp ngay gis te sepp ko nànk-nànk waaw léegi loolu mooy deux cent mille yu quoi. waa kii di patron <laughs> patron sax xel na la ci man parce que man seetlu naa ne yow sax da ngay ñëw di xool. karaw yi ba xam sedd na di xool douche bi di xool fépp ba xam sedd na Malaye Sa Malaye Sa boobu waaw Malaye Sa boobu boobu rek laa mën karaw yi bu ko jàppee ba ko amee boobu moo tax ko boobu moo tax ko boobu ba mu weex daal te waa sa karaw yi daal ma Isa bàyyi ma sonn naa boobu rek laa yéen a ngi koy xool noonu. waaye xoolal ma lii rek jigéen bi toog day toog ci waañam ah ay toog yaa ngi sa téléphone di seetaan yaa ngi sa téléphone yi ah ñii de ñii jaaxal nañ ma dama lay woon dafa def foofu bandi xorom seen añ bi waaw ma xorom ko dama ko xoromee après man ma jëm jënd restaurant <laughs> di lekk <laughs> di lay ñaawal di leen kokkali. nijaay yow lan ngay def si waañ bi comme que wax na la léegi doo añ moo tax ngay dugg si waañ bi ak lu ne nga nekk si yow moom léegi sa dara wóoratul waaye bu nu posone rek ñun. te dama ni nga romb ma nii génn waañ bi laa la wax man damay togg sama togg bii. waaye waaye allo allo yaa ma gën a soof sax yow waaw yaa ma rek kër gi sama kër la man maa waxoon ne ñaata foofu man neex laay dugg waaw foofu ma neex te yéen sax guerre bi tegoo si yoon guerre bi tegoo leen si yoon parce que mënoo leen guerre ak man ba pare ndox mu maa koy fay ngeen di togg si sama ndox gaz bi maa koy jënd bu yeexee ngeen siy togg lampe yi si kër gi yëpp maa koy fay waaw ngeen ngeen koy ngeen di leeral te saa seen téléphone. wax dëgg yàlla ngoon naa doon añ si añ te añ bi lu koy togg yëpp maa moom par xorom bi sax maa ko yéen ah, léegi nag du ñu xoolaat kër bi. yow kay bàyyi ma sa bopp bi rek dina dindi karaas ki dinaa dindi béjjaaw bi 200000 kay jar na ko. waaw wuy ba nag comme que Issa mi ngi dugal xaalis waxu takk bi nag nan si wax. yow xanaa déggoo lu ma la wax xool naa Issa ay deux cent millions yooyu la ma war a jox ah Issa envoyé na ma xaalis bi loolu tam ma jox la deux cent mille nii bëggoon mënoon naa la takk léegi léegi léegi nii jënd kër yi tabax ko nii xaw ma loo bëgg ma defal ko léegi léegi yoobaa mooy loolu quoi noon yi sa noon yi quoi sa noon yi fi amuñ naan Umar ko takk Umar yorul bu boobaa day yomb si ñoom dama leen bëgg jàpp nii ñiy gis ngay yor di sol yéeru yu seer di yor téléphone yu seer ah mooy loolu loo bëgg oto sax mën na la ko lijjantil ba seen xol yu bon ba bon après nag ma dawam ñëw takk la. waaw man dama bëgg ñu waxtaan quoi ci wàllu fay parce que ñun wax nañu lépp ma waxu fay waxuñu ko dama ne saa maa ngi lépp ku ne waaw booy lebal dama deux cent mille ma avoyé dëkk ba waaw te booy loolu quoi ma xamul ñaata laa am ma pare te pasar pasare nii. maanaam quoi dañ ma ñu weer ne nga fay ma loo xam ne dafay ñaaxal quoi du wax si waxu si waxu euro bi kii wax quoi waaw nga yor nga waaw doo nga ñëw xool li a fas rek point laa fay indi ci waxaale waxaale bi ngay bañ man du ma sóoraale yéen a waaw noonu da nga ma fay ay benn euro wala ñaari euro waaw euro yu bëri ma nii yow sa xanaa sa yalwaan bi daa doxul ah fan yëpp yaa ngi yalwaan xanaa saraxatul la dëkk bee metti nag. yalwaan gi may ñaan dox yalwaan gi dox la def waaw ko dox am na xaalis nga def ah, ah, loolu yoroon ay fukki dërëm ak ay juróom ah ay ñaar dërëm ni sarax la junni yoon trois jours ah loolu xel da nangu waaw junni lañ ma jox yoroon damay noppalu ñetti fan delluwaat fa waaw yàlla waxul kenn dara wërsëg mi fépp waaw wërsëg yàlla rek. wërsëg bu dee di nga tekki si yalwaan dina la leer. waaw loolu yëpp waxuma ko rombal ak yow Omar wuyu ma nag waxi noonu yi ko teg ko fee. man nag waxu takk bi rek laa bëgg nga wax si ndax man damaa bëgg sëy non munu sëy ñàkk faw ma wan gars yi nii nit munoo gis nit nii rek xeeb ko quoi waaw du ma xeeboon instant yi nag mooy loolu affaire yi leer na waaw mooy loolu apon avant bàyyi rek ma noggatu leen ba si kanam quoi tombeel kër gi ma jënd terrain pharmacie bi jënd ak garab ba ñëw fekku mag bi xanaa koy dox ba feebar nga mën a toog. messin bi nee na paa bi feebaram bii mooy loolu quoi bu dundee weer si lay yem. yow dara jatu la tension rek moo la jàpp mais ça va léegi. Ah. waaw léegi bu deewee ma ak sama rakk bi waxtaan nañ ba pare du ñuy jaay kër gi miraas bi quoi du ñuy jaay kër gi léegi daal yow bul wax kenn dara waaw bàyyi ma gën a feebar gën a bon waaye yow looy def si mbedd mi nii doo ñëw sax mais wuy ma añ pare na wala pareegul waaw may su paree nga woo ma su paree nga woo ma ani paa bi ak kii Issa dafa woote wala wootewul wala yaay wala bu ma woo may ma rek ma bàyyi ma ko si waañ bi quoi nga ubbal ma ko après man naa dem dóor ko quoi. la laa lay maye añ si waañ bi yow soo demul fenn doo ñëw fii nga toog ak nit ñi nga añ. waaw ma jóg naa dem seeti sama bool bi ngeen naa si biti commencé yalwaan waaw su ma leen def lii daan jox waaw su ma yalwaan amul bu ko gisee xam dafa bëri tiital dina ma jox ndax lu ma joxoon jeex na yéen a ngi toog nijaay man de Issa doon jokkoo léegi téléphone. waaw na nga toog na ah yow fi naa yéen a ngi fi toog ko man kese wala naa may jinne yu fi toog rek gisuma naa ah? may jinne yu fi toog rek gisuma leen yow naa yéen a ngi toog mën na bàyyi toog toog gi kenn gi lan la loo waxee Issa Omar deux cent mil yow cent mil man cinquante mil umpaañam cinquante mille Omar. laay depuis boobu ba tey mënu fexe ba joxe ko ay eh, salaamaaleykum jàmbaar jaar daal ah dafa mel ni Sénégal nga de aman na liggéey laa doon wut waaye waa saa waay bàyyi li ngay def quoi ah yow yaa ngi ñëw Sénégal mi ngi liggéey fii demal si beneen bitik wala nga def si beneen restaurant nga wut foofu liggéey mais man nan laa a liggéey fii nga bëgg a ñëw di ñoo ko fii yow it te xëccoog ba te fi raam noonu fi am waaye rek demal demal sa sa newu fi. eh saa ah, ah, ma kuy patron waaye wax. man fii sama man maa fi nekk waaye fi nekk fi man maa fi patron waaw demal sa yoon dama wuti feneen liggéey nee ngeen def quoi. saa yow sama mbokk sénégalais nga am waruñu benn problème quoi xam nga instant yi man amu su fanaan ma ci benn park parking lay fanaan fii fa laa sama bagage yi nekk sax instant yi moom mënoon ñëw fi ngay fanaan quoi xam nga ñu fay fanaan léegi weer bi dee ñu fay ko quoi xam nga jàpp sa mbokk sénégalais waaye billaay. waaw waaw waaw li nga la wax dëgg yàlla booy loolu quoi waaw yow instant yi nag may fàttali man moom fii ñëwee quoi aw ma woon fu ma nekk benn xam nga ñëwoon ni yëpp dëgg la quoi waaye tamit mooy loolu quoi man dul ma fat waaw mënuñu ma tamit mooy loolu ko jàkkaarteeg a métti rek a tabaaree wax parce que dafa nii yoru xaalis quoi te dafa may daaneel léegi yow daal mooy loolu gérer leen ko quoi. mais day ma tibbal ti ma defar bool ci waañ bi quoi waaw bu la laajtee dañu ko Omar gisuma ko. ay Omar loo defate ni ngay dawee sa papa nii am na loo def. non dara nee naa dara defuma dara defuma dara Issa tamit bu wootee yaay nga wax ma ko de nga ni Issa woote na waaw fi kay woote na nga woom ma Issa woote na si kër gi waaw ma am sama kër xarit ma dem ba fan yi quoi. dem sa kër xarit ba fan yii am na loo def yow mii def nga dara. Helaas, helaas. Ik zag jou maar. Ik zag man noemt jou maar daar. Mijn man jou maar daar. Maar wel, ik moet er maar kijken. Ik moet kijken hoe het is. Ja. Ja, van die jeugd kun je kijken. Maar dan kan laat jij hem. Dan kan je maar. Ja. Leeg, Omar gis naa ko fan yi muy ànd ak kinne kinne moom buy ànd ak moom rek xamal ni intérêt tax xamal ni Omar yor na waaye bàyyi ko ba mu ñëw fii rek. yow bul déranger wu waaw bul déranger wu Omar ba ko ak man waaw Issa ray gi mu diggoon Omar ne dina ko rey posé ma def ko à suivre man maa yeggale loolu man waaw seen série boobu man maa koy yeggale Omar maa jël ba kanam waaw moom la ma am rek fii laa koy yaa ngi yaa ngi dina ñëw. temps yow xoolal yow danga nekk ci problème ah, sa benn mbokk Sénégal gis la fat la yow yow boo gisee ku nekk ci problème da ko war a jël faj fat ko ah xam nga ne moo tax duñ fay bor quoi bilaay walaay xam nga mais xoolal man bilaay xoolal man duma ragal quoi da leen fay bor bu leen defalee dara da leen ko defal ñeneen ah. baay man du ma ragal leer laa lay tegal xaw dalaas laa dëkk man. mooy da ngay ragal ba nekk ragal ba génn si isa yaay wut waaw yow yaay wut nit buy wut da ngay ndaxtaan xam ay trace ak ay crasse ak ay prasse laa teg yooyu yëpp jaru ko waaw parce que trace ko nekkul fii fii Europe la waaw isa da koo fekk Europe da yaa ngi Europe ndaxtaanal ba génn si waa xam boo gan bant bant ngeeg fukk ngeeg yëpp jaru ko waa. ndax daanaka rek waaw danaa mun a rek waaw dama doon defi nekk fi moom dafa liggéeyam mooy sama bakkan laa si teg dara sax lépp laa si wane. yaay nee defuma defuma dara defuma dara defuma kiiwul paa bi rek dafa may sonn rek loolu laay bañ quoi dama koy daw fan yii moom. xoolal Omar man bu ma fi benn problème problème bi ma jot nekkee dafa doy sëkk sa papa ngi nii joxeetul dépense. pharmacie bi jënd ak garab ba ñëw fekku mag bi xanaa koy dox ba feebar nga mën a toog. messin bi nee na paa bi feebaram bii mooy loolu quoi bu dundee weer si lay yem. yow dara jatu la tension rek moo la jàpp mais ça va léegi. Ah. waaw léegi nag bu deewee ma ak sama rakk bi waxtaan nañ ba pare du ñuy jaay kër gi miraas bi ko du ñuy jaay kër gi léegi daal yow bul wax kenn dara waaw bàyyi ma gën a feebar gën a bon pharmacie bi jënd ak garab ba ñëw fekku mag bi xanaa koy dox ba feebar nga mën a toog. médecin bi nee na paa bi feebaram bii mooy loolu quoi bu dundee weer si lay yem. yow dara jatu la tension rek moo la jàpp mais ça va léegi. Ah. waaw léegi bu deewee ma ak sama rakk bi waxtaan nañ ba pare du ñuy jaay kër gi miraas bi ko du ñuy jaay kër gi léegi daal yow bul wax kenn dara waaw bàyyi ma gën a pharmacie bi jënd ak garab ba ñëw fekku mag bi xanaa koy dox ba feebar nga mën a toog. messin bi nee na paa bi feebaram bi mooy loolu quoi bu dundee weer si lay yem. yow dara jatu la tension rek moo la jàpp mais ça va léegi. Ah. waaw léegi bu deewee ma ak sama rakk bi waxtaan nañ ba pare du ñuy jaay kër gi miraas bi quoi du ñuy jaay kër gi léegi daal yow bul wax kenn dara waaw bàyyi gën a feebar gën a bon. nga waaye looy doy téléphone. jënd ak garab ba ñëw fekku mag bi xanaa koy dox ba feebar nga mën a toog. médecin bi nee na paa bi feebaram bii mooy loolu quoi bu dundee weer si lay yem. yow dara jatu la tension rek moo la jàpp mais ça va léegi. Ah. waaw léegi nag bu deewee ma ak sama bi waxtaan nañ ba pare du jaay kër gi miraas bi quoi kër gi léegi daal yow bul gën a feebar gën a téléphone bi nga yor du téléphone Omar waaye looy doy téléphone